kon su demee foofa eh, wane fa ak njàmbaar ci misaal rek eh, tey équipe nationale bu demoon fenn luñ ko waajal waajal lañ ko defal yëpp bu dikkee bu indee ndam yaakaar naa ne ka gën a mag cee ña ko yabaloon dana ko gàttandoo te dana ko sargal te teewut mënoon nañoo jàpp ne buñ ko joxutoon du dem waaye bañ ko joxee lañ ko war a jox dafa def la mu a def kon sëñ Abo buñ ko indee ci daara ji mën nangoo jàng jàng ba noppi garder njàng ma garder ak taalibeem garder pastéefam ba Cheikh Mountakha tànn ko yabal ko Masaalikul Jinaan ngir mu jiite fa jiite boobee mu doon def li ma ci jot ci ay coup de ci réew mi ak ci bitim réew ñoo xam ne dañuy lijjanti ba xam sama numéro ndax dañ doon laaj fan la doon jànge ku ko doon jàngal ñu wax le daaru sa tanzil la doon jànge ba ci ay mbokkam yëpp sax dañ leen di laaj kii fan la doon jànge ma ne nag kon jaadu na ci man maa war a gën a sant ñëpp wan ko sama ndokkeelu bopp wan ko itam ak soññee goo xam ne mboolem ñi mu nekkaloon ci daara ji ku ci jàppoon alxuraan da nga ko gën a yokk koo xam ne nii itam na ko jàppe woon des na itam da ko gën a jàpp beneen jàpp loolu nag moo tax ma woote woon ko fii ci ndigalu sëñ Bachirou Mbacke mi nga xam ne mooy wayjuram ak ma Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo ko fi yebal te lépp ñu déggoo ci ak ñoom loolu moo waral ñu woote bis bi waaye gis nga ko ni mu demee lépp di ak cant goo xam ne nii suñ borom defal nañu ci ay tawféexam waaw yëg-yëg euh, Euh, mooy damaa soññu ndax wax naa ko ci biir wax ji ne Cheikh Mouhamadul Bachir mi way juróom bi ma ubbee daara ji ñëw luye kër nekk fa menn man maak sama basan kenn néewu fa ma wax ak sëñ Bachiru xamal ko dama ubbi daara ngir liggéeyal fa lislaam liggéeyal fa Serigne Touba mu ne ma dinaa la andil sama doom ku ñuy wax Abul Baraka nga liggéeyal ci sëñ bi mu andi ko fi mu jàng alquran ba egg ci niveau bi Serigne Mountakha mi fii Serigne Touba yabal ko Masalikul Jinaan